tàmbale ak ñaan nag ñaan gi ñu tàmbali tey moom la ñu jàpp ni mooy euh, le début donc de la grande campagne de lutte contre l'insécurité routière en direction du Magal de Touba. day continuer parce que le 29 bii ñu mal muy altine muy talaata plutôt euh, duñuy organiser lu ñuy woowee village sécurité routière ci ay bërëb yu yu yu yu bare nga xam ne duñuy euh, organiser des séances de vérification technique de véhicules gratuites donc ñu ànd seeg waa SECA mooy autoroute de l'avenir ak acteurs yi ñu àndal yëpp loolu bu weesoo. ñu ngi def beneen programme bi nga xam ne ay jalonnement la ak ay sensibilisation ànd seeg acteurs yi police gendarmerie sapeur pompier croix rouge acteurs transport yi mécaniciens yi def dépannage gratuit yi euh, donc ñi nga xam ne ci sensibilisation ak gare routière yëpp ñu ànd ci